donc pour dellu si ci mbir yi euh, su fekkee ne état dafay def liggéey bi nga xam ne moom la war a def su fekkee ne am na ñoo xam ne def nañu li ñu war a def ñu jàpp leen mais ñun dootuñ nekk di ci wax sax duñ bariwul liñ ci war a wax bu état deful liggéeyam nag il faut société civile wax ko. c'est normal c'est le rôle de la société civile. voilà société civile son rôle du nekk di tagg gouvernement du nekk di attaquer la dissidence parce que dissidence euh, déjà bés bu jot fii Sénégal opposition ne dafay def conférence de presse. ñu tere ko. du tere mais cest à que yoonu gouverneur nekkul ci. parti politique boo xam ne dafay def conférence de presse am ba mu fay yónnee ay alkaati ñu fay ñu fay arrêté yoonam nekku ci même suñ ko nee yow demal nga bloqué conférence de presse bi mais dafa war a tontu ministre bi ni ko mais man sama yoon newul ci loolu. parce que les gars ont voulu organiser une conférence de presse au siège du PUR ñu déloger leen fa. fii siège au PRP. à plusieurs euh, reprises police daf fay gaare duñ fa. gendarme yi gaare fa du yoon. gendarme yi yoon lañ war a doxal juge bi yoon la war a doxal yow bu fekkee ne administrateur civil nga yoon nga war a doxal mais waruloo jalgati yoon te loolu lañ ba ñuy wax yoo seen yoon nekkul ci parti politique buy def conférence de presse seen yoon nekkul ci parti politique boo xam ne dafay def meeting am lii seen yoon mooy ñu bu fekkee ne mun nañu ko apaiser kii ko ñu ñu def ko loolu mooy problème yi nga xam ne moom lañ am ak ñoom mais mais mais Aline xam nga tamit dëgg bi mooy. déglu ma rek wax la lu leer. yàgg ngaa critiquer. dë non eh, eh, yàgg nga leen a critiquer yàgg ngaa émettre des des des des appels des alertes yàgg ngaa wax li nga xalaat mais euh, genre euh, inimitié bi ma gis ces dernier mois entre yow ak euh, ñoom euh, lu récent la te ñoom li ñuy wax ñoom waxuñu ne waroo critiquer mais dañoo ne. vous êtes partisan ces critiques yi ça va dans un seul sens alors que de l'autre côté il y a des dérives yoo xam ne nanguwuloo ci wax da ci gëmm tegoo ci sa loxo. si dama ciy wax. kaña. dafa dama ci wax mais déggoo li ma la wax amul loo xam ne nii kii na ba ma bind ko dama te binduma ko dama koy bind su ma ñëwee wax ko condamner violence yi toutes le violences bind ko. boo jëlee suñu dernier truc yi sax da nga gis même sama rapport. mais mais mais mais mais moi. même sama rapport. bi bi ma la jox nii mu ngi ci. seulement nag démocratie su fekkee ne déjà yow euh, opposition bi amul doole état bi di dal ci kawam ñun tam ñu dal ci kawam mais dañuy rey démocratie. ah d'accord. démocratie foog mu am opposition bu am doole yem ak ñoom ñu dem man dem naa fu sori ah, pour pour pour bi ma gisee affaire yi nga xam ne ñu ngi jëm ci ay violence xam nga lan laa proposé man maa fi jëkk a proposé ay problème mu cohabitation ak li ñuy wax euh, transition civile bi ma wax ma ne ah bi ñu paree législative yi ma ne yéen da ngeen yem doole te lii may gis nii c'est-à-dire que gis ay enjeux de pouvoir su ñëw koy xam les enjeux de pouvoir là mi ngi ñëw depuis les années depuis 2021 bi ñu indee Adji Sarr ñu xam ne enjeu de mi ngi ñëw te enjeu de pouvoir bi gis nañ ko bu fekkoon ni sax amul li ñuy wax antécédent antécédent yi mooy Karim mooy Khalifa c'est des c'est des antécédents lourd day nekk ci mémoire yu ñun ñi troisième bi bu ñëwee nga gis ñu ne ah attention donc on a l'impression et ça c'est mon analyse que dafa am si vous voulez des armes non conventionnelles yi ñuy utiliser souvent par rapport à la question de l'éligibilité de candidats et les gens ont une des réponses yoo xam ne c'est des réponses non conventionnelles aussi lors des législatives donc vous, vous, vous trouvez les réponses et les postures du, du camp de l'opposition légitimes j'ai pas dit c'est légitime quand j'utilise le mot non conventionnel il faut comprendre. Ouais, mais quand vous dites qu'on utilise. non non je euh, dis des actions moi, je non, constate. non conventionnelles ñoom aussi ils répondent par des actions non conventionnelles. donc c'est légitime déglu li ma la wax mosu déedéet du légitime. xam nga boo nekkee dans une stature de description de fait damay constater damay constater su ma constater ay fait nag à partir de ce moment là ma commencé ni ah il faut que j'anticipe sur les violences possibles. yoo xam ni si vous voulez euh, euh, confrontation yi foofu la jëm ma leen dañ def ce qu'on appelle une transition civile mu am une cohabitation et puis pendant cette cohabitation il faut examiner les bombes à retardement ñu désactiver ko bala ñuy egg feneen loolu laa proposé mais je me rappelle il a un député de la majorité qui m'a dit mais Alioune tes propositions sont intéressantes dans l'opposition les gens me c'est intéressant parce que lii bu ñu fa de bu ñu ko demee dina dem donc ñun dañuy xool problème yi ni problème yaa ngi ñëw ñu won leen ko ñoom nag ñoo koy interprété neneen